sa xaalis. lekku ñu dara sant yàlla rek. mais mais mu ngi fi mu ngi fi mu ngi topp ay traitement am waaw mu ngi ci làmb xama nga jaam ak yàlla dogalam koo xam ne musul yàq làmb bu yàqee làmb ñëpp dañoo war a ànd ne d'accord quoi parce que jaam rek quoi moom jaam rek. ñu bari naan Ama blessé wul ndax waxu dof la. ndax Ama ba bu juddoo ba léegi ba mu duggee ci làmb ba léegi Modou Lo bëgg Ama bëgg na bëre moom mais li ko dal dañ koy ñaanal yàlla teggil ko ko d'abord ba mu mën a toppaat ay activité am mën a ñëwaat si làmb loolu rek la non am dafa gaañu dafa gaañu si tànk comprendre nga waaw lool la instant yi nii moom la médecin yi wax te buñ ko bàyyi woon ak moom ak jomam day bëre si xamul la waaw mais moom nit ñee ko forcé ne ko làmb ji mënoo koo bëre waaw yow moomoo sa bopp dafa am ñu topp sa loolu moo tax mu dugal lii mu dugal waaw non non non maay noppalu maay parce que damaa daanu am ñuy jooy xaw ma ni woon ay nit man jaral naa leen jooy may defaru dem Paris jaar Espagne suba dem Turquie yokku maas bi def doole ñëw daan gaay maa leen mën. waaw mais dama koy tàggate dama koy tàggate def ko muscle dama koy dama koy def muscle muscle laa koy def muscle. dañ ko. non Ama kenn mënu koo coup d'état xam nga lu tax kenn mënu koo coup Ama Ama Ama Ama Ama Ama ci moom la mbër wàññeekoo Ama Ama Ama mooy làmb ñi gën daan ci làmb Ama moo leen daan comprendre nga Ama valeuru làmb la làmb moo ko bëgg c'est un produit qui coûte très cher dans la lutte du monde entier di arène nationale yaa may dégg buur non loolu dégg nga papa Boy Niang bi mu ci wax. man loolu laa yaakaar su Boy Niang loolu àgguñ ci parce que loolu loolu amul benn Pikine waa bu ciy d'accord comprendre nga li ñuy d'accord mooy Ama Baldé comme que moo am contrat moom Modou ñoom ñaar ñu bëree ah loolu wóor na la sa diggante ak yàlla ah. waaw ay ca loolu bu amee loolu bu amee ñun Pikine la ñu dëkk en tout cas li ma la mën ba assuré la ko mooy bu ama nekkoon place Boy Niang du def loolu lu leer laa la wax ama bu nekkoon place Boy Niang tey Boy Niang nit ku baax la mbër la ku nekk sa kër nga bëgg a yóbbu boo amee mais ama combat Boy Niang du yàqu ama di ko